tere gi nga xam ne ñu ngi koy tere ndaje yi ci réew mi ndax jàngoro ji di coronavirus waral ñuy tëj marché ocas bu Touba su quatre heures si ngoon jotee rek loolee am njeexantal ci li nga xam ne moo di jënd ak njaay mi rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur informel bi. dëgg la nag mooy président mooy njiit ni wax tamit ci réew mi pour wàcce policier yeeg wàcc ñëpp ci terrain pour éviter feebar beet dinañ ko wax ci nangul waaye nag teel xëy mii ñuy xëy ak teel a wàcc metti na. met na ci borom kër yi met na jigéen ñun ñi ñi daan doole ndax man mu ma saan xëy daanaka 7 dinañ lal jaay bàyyi une heure tisbaar nga wër di fayeeku gaa yet ngoon la ñu mën a encaisse ndax da ngay xëy di lal ba ay 11 heures 11 heures midi commencé jaay ba ay timis jàpp gee ñun man ndékki lay jaay ci laay jël di débrouiller di jaay ndékki waaye instant bii su ma doon jaay de wàcce ko ay vingt 000 10 000 mat sax doo ko wàccaandil ndax boo waree xëy liggéey jox nit ñu lekk ñoom it la ñuy jaay ca lañ war a mën a fay balaa 3 heures ñu wàcc kon am njaay amu fa. non ñu ngi fii de waxuñu bénéfice suñu koy jaay waxatoo bénéfice xam nga looy waxa ndax di nga am 2000 francs wala 3000 yooyu bu sa kër sa waa lekk ko waaye bénéfice moom waxatuñ ko moom bénéfice non man dawuma ci bénéfice instant yi fi mu nekk ma ne siiwee amul sama kër bu soo xëy dawaat léegi nag comme que nee na ma affaire boobu kat mën naa am mu ndax li ñu koy dakkal mooy da leen tëj seen kër dootu leen mën a génnati loolee noo ne est-ce que suñu waa kër dinañ a jox lu ñuy lekk loolu rek mooy suñu problème waaye bénéfice moom fee ni ñu ko man jooy naqariwu ma ndax àdduna bee ko laaj am na ñoo xëy tëj leen te ñoo yëpp yaral da mi nag moom juróom benn bal dama ko daan dagg wala juróom ñaar maa ngi nii benn laay dagg tadu jeex waaye teewu may sant nag waaw ndax gëmut nii dañ ciy was laax rek bu ñu waxantee dëgg ñun waa Touba njaay mi ñuy jaay képp ku ci gëm suñ Touba laa wax dañ ciy was laax rek mais li lay dundal dëgg dëgg am na faneen fi muy jóge ñoom commerçant yi donte liñ daan am bés bu yàlla sàkk wàññeeku na bu baax a baax waaye ñoom ñu koy sante yàlla ne jafe-jafe yi fii rek ci dëkk bi àddina sépp la. waaw jamono ji moo changé rek fépp la moom fépp crise moo tax ñun ñëpp dañ koy maas yëg rek bi ku nekk boo xëyee lii si wërsëg di nga ko jot ñun daan nañ xëy suba ba ngoon duñ sox ko te booba feebar amul kon léegi mën xëy suba ba bi nga sox ko am li ngay am dem ñibbi waaye ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw jaay mi nag moom ñu nag ñëpp ci yem jamono bi toll na foo xam si ne rek ku yaakaar ni moom li nga doon liggéey noonu lay continuer demee rek nax nga sa bopp te wut ku ne war naa mën a xam ne mënut a ne sax ndax suñu borom indi na fi dogal boo xam si ne fu waay mën a ne ku tëju sëb néeg sax daan la fa fekk kon nag rawatina ñi nga xam si ne ak jaay ci lañ yaakaar seen ñoom nag ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñu yokkalaal leen waxtu wi ba 17h ndax koor gi nga xam ne mi ngi dënmal. comme heure bi day changé te koor gaa ngi ñëw yaakaar naa heure bi ba nit ñi buñ mën a xaw a guddee waa ci war a mën a am lu ñu dogu ak lu ñu yóbbu seen kër ndax Sénégal la nekk ñun amuñu doole te fii daanaka ñu baree bari ay góorgóorlu lañ dañuy xëy suba dem jaay ba wàcc dogandugu yóbbu seen kër loolu nag tey boo leen yokkal heure bi ñu am ñu yóbbu Sénégal mooy gën quoi parce que instant yi koor gi ni mu demee nii ak jamono bi ni mu naqaree heure bi ñuy wàccit quatrièmement bi garaawul comme que wér-gu-yaram lañu ci bëgg di garaaw amul problème bu jógee jàmm ñun ñëpp ñu dem. ñoom commerçant yi nag ñuy xamle ne donte jafe-jafe am na ak metit lépp loo xam ne jëm na ci dëkk bu sell bi di Touba dañ ciy déggal xalif général de Mourides ne lépp lu mu wax rek ci dëkk bi waaw la sant. ñun nag ay taalibe lañ li sëñ Mountakha wax rek moom lañuy jafe jëfee ndigal ndigal loolu daal moom moom la ñu wéyee moom. daanaka bala heure bi ñu wax rek balaa jot sax ñëpp wàcc ndax fi mu toll ndigal rek lañuy ñuy doxee te mbir bi ko sëñ bi yëgee. nangu ko rek la ko murid yëpp nangu te ñun ci ndigal rek la ñuy dox te lim ne woon tam lu presi luñ ci santaane na ko def it loolu dañ ko jàppale mu bokk ci digal li jàngoroy coronavirus gi am njeexantal ci wàllum koom-koom ci àddina bépp rawatina ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci secteur informel bi waaye ñoom ñuy ñaanaat yàlla di rafet njort ne jàngoro ji dana fi dañ te jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund dana jeex tàkk. li ci des nag dañ ko bàyyi loxoy sunu borom.